moo ngi mer de kuro kuro kuro fâché kuro maquillé fâché la wala lélélé xaw mais eh kan moo merloo sama tante gi yéen sa tante gi kan moo ko merloo waay c'est qui qui a fait ça c'est toi qui a fait ça pourquoi t'as fait ça Pourquoi toi tu fais ça Tu m'as fait ça, c'est pas normal. C'est qui qui a fait ça, ma tata Kuromaki ki mer Moko, woo leen ma ko ma sama tante gi voilà que abonné si pas un bi fii rek wala nga ami ak moom partagel ma mu si sama tante qui dama ko namm instant yi dama ma lu ma duñ sang duñ ma oui, doon maa ton. ma Je de suis part pour ma tante je viens défendre ma tante c'est qui c'est qui qui a versé de l'eau à ma tante je recherche Moussa recherche voilà parce que vous avez rendu furieux ma tante là Tata a couru fâchée ah, Tata a couru fâchée elle a perdu la tête elle perd les boussoles voilà tooñ ngeen sama tante bi commence à commencé commence à perdre la boussole. Elle perd même la tête. Elle raconte maintenant de la merde quoi. Elle comprend. Le pire Voilà. Moi, comme je le dis, trouvez-moi le corporel. un Kuroma qui est folle. Moussouma, comme le que rôle député day dof j'ai jamais su c'est comme man je vivais comme ça mais j'ai jamais su ni ko député day dofloo nit poste député day dofloo nit de ça rend malade nekkete je n'ai jamais moo tax nag moom Coura Macky jaar na fa nag waxuñu leen gàddu ngembam bi de ngemb gi moom du si wax waaye Coura Macky jaar na fa gàddu ay greffage am elle a ramassé ses greffages la ilaha illallah man xaw ma woon ni que député day dofloo ku la Macky da nee na pouvoir wax ak américain man fa laa euh, c'est que lolo ma ma stressé ni. je suis stressé et ça lolo ma stressé parce que elle est devenue folle respectez les sénégalais respectez vous-même mais amna ci si ñoo xam ne ñom dal du nous respecter sen bop té tamit du nous respecter ah hein? ma Macky léegi rôle député bi duguna ci bopam à un point dofloo na ko ça l'a rendu folle yaakaar na ni legi euh député bi da ka jox grade ba mu meuna a naaw comprendre legi sa way dal beug na firi la fam kenn comprendreul wala di pat pat ci kaw nit ni melni ginar bu toy nee na amna na pouvoir wax ak américain yi legi seetetetet a gën seetetetet a again a again a Again, you. You again. Again, again, you. You again, again. Shit. Toujours. Toujours. Non, mais la folie quand elle vous tient par le cou. Hein. La folie quand elle vous tient par le cou. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Hein? Sénégalais, mais pourquoi Sénégalais? Moi, nous respectons les Respecter de homme, Man, c'est ça mon problème. ku si gën a con gën see stupide ñëw bëgg këf tout le monde yóbbaale leen def leen ay con def leen stupide j'arrive pas à comprendre cela hein je suis vraiment dépassé par ces gars Coura Macky est lépp ngir lan ab sang sang buñ ko sang tooyal buñ ko tooyal ak rôlu député ça l'a pris la tête la fi la la la pauvre ma ma pauvre tante est devenue folle tooñ ngeen ma ba si kanamu yàlla da ngeen maa tooñ. yee parce que sama tante bii ngeen jël dofloo ko xaw ma si lan ngeen ko teg tegoo leen ko si fet yëfu ma tey ngeen def c'est pas moo tax nag man <coughs> je viens défendre ma tante voilà je viens défendre ma tante quoi ku amul tante yaa xam voilà ku amul tante su la neexee nga mer voilà ku amul tante yaa xam ku a kee ma nangoo woon jarbaatoo xam nga doon sama tante kenn xamul fu mu tey na lay may tante tey oh, man am naa tànt de am naa tànt voilà ko amul tante am naa tante son excellence dofloo ngeen ko nag vous l'avez rendu folle loolu rek ay son problème voilà elle a pété les plombs nee na day wax ak yi léegi te dina leen wax ni que gars yi ay terroristes man nee naa ko fu mu wala tàmbaleeg fu mu wala jeexale c'est man moo ma jaaxal voilà day woo américains yi dem taxaw ne leen lan sénégalais ay terroristes leen xanaa wala ah, day na Ousmane Tounkara kii eh Ousmane xanaa waxati Ousmane Tounkara de moom ñàkk jom noonu kooku de moom waxati xanaa xanaa da ngeen di dem waxati ni ko Ousmane Tounkara encore jënd jëndati na ñëwaat bombo voilà dem na génnee bombam ya voilà mais c'est pas la première fois defar ngeen ko fi benn yoon ba bëgg ko fi mu mu échec voilà léegi kay xanaa defati waaw leneen la ñuy wax mais Coura daal a pété les plombs voilà Assane Anne Assane xaaral ngi ñëw sa kaw Coura nee na nag waaw xam nga moom Ousmane Tounkara la gën a yeb xaw ma tunkara lan la ko def waaw Coura moom tunkara la gën a langal affaire bi c'est passé quoi mais moom ak tunkara comme ni ma ko waxee rek voilà seen ba daal moom foofu am na lu ñu fa lonkalante waaw waaw moom tunkara am na lu ñu fa lonkalante de waaw en tout cas ñoom ñaar daal man je dis ça je dis I mind my own business lenn rek ma tooñ may xam nga voilà une bouche pointue quoi waa nekk waa ba jiiba looloo ma tooñ dama xaw a waa ba jiiba quoi sob dugg si problème mu jàmbur voilà wante bii moom moom je vais le porter parce que bi sama tante la sama tante la de voilà combat bii dinaa ko sol Coura ki dofna na buy sama ndey woo nu Coura ki nee leen ni ko léegi boobu américain yu muy waxal ak keek ak nangam yoo bob boobu daal nu expliqué nu mu jógeeg nu mu demee dof dof lay don de billahi dof du wér dof dof lay doon mais li lépp Macky Sall la nu tooñ Macky Sall la de Macky Sall nu tooñ moo nu ko andil waxta na ko nu ko waxee rek lii rek la xamul buur saa nu buur sa na wala buur xoolal teppi lu bonom moo ngi nii de waaw genre yu mel nii moom fii rek la mënoon mujj nga ni ko fii rek la mënoon mujj hmm? yaa que ça qui reste ku la député day dofloo nit ah xam nga ne que man léegi am naa pouvoir wax ak américain. wéé bal c'est que ab député bu nu fal bu wala taxaw ak américain yi di boole man c'est que c'est ça que j'ai envie de voir voilà nu mu koy doxalee ab député bu wala taxaw boole askanam américain yi xam nga man loolu laa bëgg a gis waa nan la a demee. waaw ñoom ñoo ma fal de eh, de eh, eh, def lu ma doon may neexu lu ma doon may xeex loolu waa Sénégal nu ngi koy yàqamte boobu de maye nga ko laal waa Nicaragua ñëpp ay dugg loolu lekk la waa Sénégal yàqamte comme ça waa Nicaragua ñëpp dugg nag daande looloo tax nag ñuy daw sama dëkk bi quoi sama gay. guy. Ngereala waay wax leen ma sama tante gi waaw ah, ku sama tante gi dit ah, Pas moi waaw parce que ngeen sama tante ga nag ah, ma tante kuro. jaar na fa ñàkk xel ga dof na Ele fol, folle c'est fini waaw Coura Macky na fa ay bagaasam ken xamatul waaw ah, nu mu demee noonu quoi c'est parti en couille lépp ngir sang <laughs> elle est devenue folle waaw ah, xam ngeen ni que am na yenn xam ne ni que mooy loolu tooñ baaxul waaw ah, tooñ baaxul waa APR wala waa Macky Sall ñoom sunu defee lu ñuy def da leen di neex nag du ñuy kontaan non du ñuy kontaan di toog di tooñ di ñuy kontaan suñuy génn xolal di kaañoo wala Macky sàll jàpp ni ñi di leen jaay doole wante ñoom une fois que nga am waaw nga am noo mel ak ñoom rek ñu commencé di wër di jooy wala di wër di raconter ay wax yoo xam ne ni que amul benn bopp amul benn genn amul bopp amul genn voilà parce que tey jii nii comme nu ma ko waxee rek lu xew si dëkk bi yëpp ba agsi fii ñoom la de ñoom ñoo tax tey jii nii lépp lu waay mel ak ñoom mooy lool noonu parce que lu tax ñoo woo nit ñi si ay affaire de defanteeg ay affaire de ak ay affaire de konkonru si kaw nit ñi ñoom ñoo si woo nit ñi wante suñu woowoon ni ñi si fullaak fayda woo nit ñi si waxu nit lii lépp du leen si fekk lii lépp du leen si fekk voilà léegi nag ñoom lan moo waral affaire yi met fu leen di woo lépp bëgguñu koo tontu ñàkk bëgg tontu wala wuyu fu leen di woo wala wax ak askan bi moo leen yóbbee ñu dem di xoole ji yeneen bagage yoo xam ne ñoom ce n'est pas problème yaa ngi dem di def ay yëfu naa fekk ak ay kii léegi nag nit ñi fekk si leen si ñoom mbirum naa fekk boobu noonu ñoom ñuy jéem a doxal wala di si teg nu mer nu mer parce que tey jii di suñu génnoon ñoom waa APR ñëw wax si contrat yi na leen ko téye wax si dëkk bi na leen ko yoreek ñoom lu leen dénk luñ si def instant gii nii ku ñoo fekk nu si loolu la ñuy fekk nuy wax mais lan moo waral léegi ku ñoo fekk nu fekk nu ñuy wala di sandante wala di xeex wala di saagante parce que daam ñu ko fi teg daam ñoo xam ne ba leen dalee interpellé ba léegi ñu ñuy saaga nit ñi ku ñu leen nu saaga leen tey tey la waa APR wala mën a toog jooy ay saaga wala ku leen di ñuus waa APR ñoo fi andi saaga ñoo fi andi wax gu bon ñoo fi andi duul ñoo fi andi jaay nit ñoo fi andi xolal seen yëfu dof yi yëpp ñoom la donc lu ñuy wax di expliquer moy lan tay ji ni lan leen wala ñew di genn di mer di wax lan leen wala genn di mer lan wala genn di mer APR tey luñ ko def ñom ñoko fi andi tey nu senegaal mel ni yëpp ñoom la yaa wi sutura fen xaawi duul ye sos déggool ma ñoom léegi tey fan la mujj ils veulent s'en sortir maintenant pour diaboliser tout le monde kan leen mën a diaboliser su si su fekkee ni que ñoom ñooy ndey mil gi kenn leen mën a diaboliser ah dégg ngeen lu mu wax dégg ngeen kii te ñoom ñu yor ay ministre ay député wu saagakat ah ñom yore ay ministre ki député wu kat ba paré bëgg merci ku len saga ñom kenn du comprendre kenn du comprendre tay suñu démé ba Coura Macky mëna a taxaw traité Ousmane Tonkara caga traité jabaram caga traité askanam bi yëpp caga traité tout le monde caga gaay ñew tok di fenn di wax di dul di jël ay taatu jam naan ay diw ay tank député di taxaw di naan diw taata mi dafa melni diw taat yi dafa mel ñom ñoom ñu toléré ko tok légui mom suñu wëlbati ko wax ci taatam bi wax ci ngembam bi roose ndeyam mu mer kenn comprendu nit ñi au moment il faut que nous explique il faut que nit ñi nous explique qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qui se fout wala qu'est-ce qui se passe là D'a am ñu wala genn ñom taxaw saga ku leen neex wax lu leen neex récolter seen merde ok ça passe mais ñeneen ñi nak ñom ñom walu no wax walu no genn ñoom n'entok toog c'est ça que je veux que les Sénégalais essayent un peu de m'expliquer comment ça se fait que ñoom le jugement toujours se fait d'une façon que da am ñu war a noot ñeneen ñuy wal nangu jugement boobu noonu ñoom nan la ñuy def ba di ko euh, understand di ko teg di bëgg nit ñi di si dox ñoom ah danoo war a nit ñi ñuy saaga danoo war nangu Come sa puoi sapere? Come sa se sapere? moo tax comme li ma koy waxee rek gis ngeen dof yooyu noonu dof yooyu noonu affaire yi dafa commencé jàpp seen bopp waaw nguur goo liggéeyul nguur goo méritéwul ah su la da ngay dof te loolu moo dal ñu si bëri si waa APR gars yi si topp ils ils ont pété la tête parce que nee naa ñoom fii nii nu toog ñoom xam nañ ni que bu baax ni que il ne le mérite pas il ñoom xam nañ loolu moo tax instant gi seen dof-doflu gi yëpp nu nekk di tëb di wax mooy loolu Coura Macky su ñëwee ba taxaw ba nuy wax mi jéem a dof-doflu si kaw nit ñi dinaa nu ay mën naa wax ak am naa kàddu pour wax ak américain yeeg xam nga ni que ñun la ñun la yëpp voilà loolu mooy problème bi ndulli gi lu leen di wax lu waral ñu leen di nokk bo ba léegi lu waral ñu leen di ñuus ñemewuñu koo wax ils sont toujours allés chercher d' autres problèmes yoo xam ne kenn li laaju leen ko problème yu tax ñu leen di ñuus fu ñu dem duñ fa am jàmm lu tax ñameew noo taxaw régler cas bi ñëw leeral wax gi si yore réew mi lan leen di ñuuse si nu ñu réew mi lan leen sonnale neen génn wax waaye def nga ah, naa kii ñoo ngi lay xaar. loo mën a wax ak wax ak yi soo ñëwee fii dàq gis ñu la dàq wax ak américain yi booboo gën a dee loo mën mën mën mën mën wax ak américain yi bis boo yegsee fii dis ñu la dàq wax ak américain ñoo la wax ak américain voilà légui nak poste de député bu la jox su de la doflo wa ila yow nga raakaaju wala nga rogantiku nana la yow lo dina la ko dans peu de temps yagatul voilà yàggatul tu vas te réveiller tu vas te réveiller de ce rêve que tu es en train de faire on va te réveiller voilà on va te remettre la tête sur les épaules parce que yow on dirait que tu as pété beaucoup de plomb tu as pété beaucoup de plombs lu a pété ces plombs Il y a ko xam lu nga pété ses plombs Il y a ko xam mais on va te gérer hein. tu vas voir te là comme nous ma elle va pas être la seule hein. moom départ bi kese ñoo xaar vous peloton bi votre peloton là on vous attend vous tous voilà ye la ni xaar ku si dina si ñam ku si dina ñam lolu ça n'a pas là voilà demi mesure voilà un peloton bi yëpp nee fi ak euh euh élection yi di doo toole nam di am ku alalu àdduna jaral soo ñëwee tamit dina la jaral tamit nu saaga sa ndey ça loolu lan lay doon duñ koy def pacte pacte la mais eh, pacte boo xam ne ni que tey alalu àdduna su la jaralee rek xoolal saa waay tu vas faire avec nous tu vas faire avec nous kenn du la si génne amul kenn ku la si mën a rocc toj sa lu bon rek loolu kay maa la ko wax toj seen lu bon sie boo sax ngeen ngeen ngeen ngeen daal xool leneen lu ngeen di lijjanti wante nee naa leen de fii am ngeen sérieux problème am ngeen sérieux problème Macky Sall sax si boppam moom mu muy daw moom moom moom moom bu lañ jiital xam na ni que mbir yëpp daa taxar naa se na seen baay Macky Macky Sall bu leen jiital moom si boppam il sait bien bel et bien ni que c'est parti en c'est parti en qu'il aura de sérieux problèmes waxatuma nag yéen ñii nu jël teg si mbedd bi ngeen fo leen ka ay chevalier ngeen wala am ngeen lu ngeen mën tey leen wala ñun fi leen dekk gars yi def fi leen nek fi leen dekk fi leen fasiyene tok ba mbir yi changer te fi leen ñu tok di ak yeen te ku fi ñëw fekk nu fi, encore une fois leen def ak yow loolu moy wax ge wa ku fi ñëw fekk nu di leen def ak yow ba mu saf sap sénégalais yu nek foofu Sénégal mo mën ngeen leen a dofloo mën ngeen leen a takk mën ngeen leen a taal su leen neexee lekk leen tout le monde ñoom nangu nañ ko c'est leur problème waaw wante nee naa leen sénégalais yu nekk si bitim réew du looloo tax du ñoom ngeen ñëw pour baab si su ngeen ñëwee on va vous montrer de quel bois on se chauffe voilà campagne leen Sénégal meeting leen Sénégal waaye su ngeen meetingee wala ngeen campagne ñëw fii du ñun ngeen ñëw waxtaanal si du ñun ngeen ñëw baab si ñun ngeen ñëw raxas si suñu bopp su ngeen ñëwee on va vous montrer de quel bois c'est tout loolu kenn du ko tere loolu kuy mer di nga dee voilà

ñëw les sénégalais de la diaspora yi nu ñuy ñëw donc ils ils seront pas surpris de ces gens qui viennent pour Bab de leur accueil on va les accueillir on va les accueillir autant qu'ils sont Ou parti partir ne sont pas les sénégalais sorti su Amé, président bi daa pour tous les sénégalais parti bobu non, ñoon di bi c'est une petite portion de xaaj bi du duñu sax ay sénégalais wante les vrais sénégalais vont vous accueillir ils vont vous montrer ce qui les fait mal et de quel bois ils se chauffent loolu si yóbboon na leer sen bopp yi si yóbboon na leer sen jo seen bopp yi ngeen di wóor di kii di expliquer Macky Sall moom si boppam xamna ni que il en a fini Macky Sall moom si boppam xamna ni que c'est fini pour lui voilà direction CPI cour pénale internationale fa la jëm waaw amul kenn ku ko mën sauver amul ben serigne amul ben nit amul lenn ku ko mën sauver si coow lii nii moom mu tàmbaleeg askanu Sénégal amul ku ko siy génnee Macky Sall lii nii mu engagé ak ñun amul ku ko siy génnee moom ak ay moroomam amul ku leen siy génnee voilà Macky Sall Marème Faye Sall bii di dof-doflu hein ñoom ñëpp ils vont aller à dof yeeg tout le monde va aller en prison ça n'a même pas besoin de se de chercher de chercher des échappatoires foog na ni ko soo dofee dinañ la yóbbu si ay centre wala ay asile dem teg la foofu noonu ay ki naw ñoom ñëpp ils vont aller Amadou Sall ça va répondre regarde ma tout cela Antoine John, moy nek le premier kuni katandem kattandeem si le Antoine John va souffrir Antoine John nee après nguuru Macky sal on va lui rendre la vie minable parce que c'est un imbécile un fils de pute c'est un lâche c'est ce qu'on appelle la qualification de la vraie lâchetude la vraie lâchetude soo xoolee kanamu Antoine John. su la a nga jàpp def ko xoolal logo def ko logo lâche dëggantaan moy Antoine un vrai lâche de de putain de merde wante xaar leen rek ils croient qu'ils vont ils vont s'échapper pour andi ay ay ay ay waxu contre carré wala xam nga ay waxu jaxase wala ay waxu sandi xeer pour que nit ñi faté wax gi dem wax yeneen non faté wu fàttewuñu leen te du faté té te wu yéenewuñu len faté loolu foog mu clair sen bopp yi len faté fàtte wu yéenewuñu len faté voilà ay milliards ay ati atu sàcc bàyyeegunu leen loolu si yóbboon na leer seen bopp yi bàyyeegunu leen voilà ñu nekk yéen moomee eh? ñu ngeen def ba bëggoon ak nguur gi di jaay ak nangam di ngeen ko gérer waaw Coura Macky nag moom comme nu nga ko waxee eh, eh, ah pareegul de waaw yow pareegunu si yow waaw bu réew xale yu réew a koy rek loolu musul yàqu mag mu réew ay xale yu réew ñoo koy réglé waaw dangaa réew dangaa con on va mag bu réew moom xale yu réew yi ñoo koy réglé mag bi saaga mag bi wër di fen mag bi wër di duul su ñëwee xale yi sang ko ba mu set waaw feccloo ko raas sang sanday ba nga set ngay fecc wah wax gi leer ya. neneen temps yi temps yi Amadou Ba nenen. Nenen soutenir neneen neneen temps yi Amadou Ba leen teg si di xaar ñoo xaar mu génn Amadou Ba gisaguñu ko daa mel ni moom nommé nañ ko mais ñemewul génn ba léegi hmm? le chat ils ont nommé leur chat mais le chat se cache hein daa mel ba léegi le chat nag eh, n'ose pas faire face gars yi leen jiital yaa moo fiti moo fiti leen jiital pour nu de terrain bi ñëw wax à sa place rëy làmmiñ de terrain bi xool balaa moo génn taa yëpp foo tourné moo fiti nga fay gis ah les doomu xaraam délégué la waaw Amadou Ba moom su ko Macky Sall kii waaw war na ko. taay gis naa sa si Abi Ndour même Abi Ndour a pris ah Ama Abi Ndour génn na nee na Amadou Ba moom su moom sarax na ko laay fam ay kii ak dàggam di teg dawaa ree ba daal suuf quoi ba daal de doo famille Ndour bi amuñu rusukaay quoi ba pare ba daal non eh dee na nag léegi nag day day day teg xel de. abindu ñëw toog si plateau ah di jéem influencer nit ñi di tek ba paré nak di jaay neex làmmiñ nit ñi ah parce que ben instant journaliste bi nan ko wa mais yow xana gisoo ni que yow di ngay def ni ke sa da ngay influencer say fans wala fe mo na len man ah non man abindu ay affaire de ki kolal waaw ma moom suma ma faree parce que après ni dundu gi man dama sama dundu bop waa am sama privacy am sama kii loolu lépp kat bañu ko voilà mais c'est nag loolu la ñuy jéem a joué su la neexee nu am seen privacy def comme nu nit ñi def am seen dundu bopp yaa ngi comprendre léegi su la neexee tantôt c'est des stars dañoo am lu ñuy dund léegi nag ñoom duñ koy nag fu mu leen arrangé fu mu leen arrangé wul tey jii nii suñu walee humble dund dund bu humble ruux si biir nit ñi ànd ak nit ñi jaxasoo ak nit ñi non boobu ay artistes leen ay stars leen xam nga mooy loolu noonu quoi mënunoo jaxasoog nit ñi danoo am benn degré parce que nit ñi kek nangam léegi nag suñu demee nag ba nu fay la nu ñëw wala endoctriner nit ñi dof-dof boobaa nu ñëw di jaay ni que ñoom ak nit ñee bokk yaay comprendre que léegi sax ñoom ay nit leen ñoom dafa kee kek nangam jël di jéem a jël seen degré de star wala seen degré de kii dindi ko jéem a di jaay ay affaire jaay ni ko ñoo gën a neex nit alors que c'est fo c'est faux Habib Ndour n'a droit di toog si plateau bi dinaa des campagne ou ay affaire de qui, état une une figure qui elle peut influencer voilà cas kay bien au côté le monde, moi, je mooy mu accepter ko wante ba non parce que c'est mon choix non c'est choix personnel en tant qu'une célébrité ton choix personnel ne doit pas venir être à l'avant ce choix personnel d'un parce que si nekkee était célébrité c'est image ngay image non ce n'est plus ton choix ce n'est plus ton image ton image est devenue maintenant du commerce. Donc ce qu'il offre, c'est au plus offrant, c'est à où tu t'assois, c'est à de quoi tu parles, c'est là où ton image va s'assembler. Donc ton image va avec ce qui va. Tu n'es plus d'une personne lambda. donc on a yow soo amee image boo xam ne ni que sa image ngay dundee sa image ngay jaay nga jël image boobu noonu teg ko ci côté politique ñuy wax nga daal di bëgg a gëmloo ni que yow influencé woo kenn wala kii waxu dof la waxu loolu noon nit ku di ko c'est de l'imbécilité elle influence parce que lu tax dafa am ay fans am ay nit yu ko topp bëgg ko si lool noon c'est comme taalibe ak moo waral tey jii nii tey taalibe yu bëri dof topp ginnaaw Macky Sall kii te ba tey mun taxaa musul taxaw daal ne murit yëpp ànd nag ak Macky daa day toog wax lu baaxam si Macky en tant que nitam mu am droit tamit tànn ay affaire su waxee lu muy baax ba pare noppi ñu ko topp ñëpp tamit dem ànd parce que moom moom la bëgg daa si murit yëpp tey danoo ànd ak Macky Sall parce que sëriñ bi Muntaxa daa bëgg Macky Sall daa si saa yu Macky Sall toogee sëñ bi sant ko waxal ko lu rafet léegi taalibe yëpp daa di gis loolu ànd sek Macky Sall donc yow tamit bu yore image en tant que artiste nga génn ngay wane ni que yow fii ça veut dire que da ngay woosay gars yi pour nu daal di ñëw tamit bëgg foofu donc Aby Ndour c'est une motherfucker Aby imbécile la wax bu muy wax ni yëpp di teg nii doomu lëfal la voilà lu magam defoon moom la bëgg teg ils sont en train de jeter les cartes c'est une famille qui essaie de faire le malin voilà magam sandina na carte am ak Macky Sall lekk leur règne fini elle, elle va essayer de continuer maintenant la nouvelle dynastie Ndour, de toujours s'infiltrer dans le gouvernement pour qui Donc, elle jette aussi ses cartes avec Amadouba. Au cas où Amadouba sera président, elle aussi, elle va venir se passer. Elle aura son petit mouvement et venir nous emmerder ici. Là. Hein? Moi, Omar Sow nee na Abidou ne peut pas influencer les sénégalais loolu nag mooy loolu moo lay tromper alaa xamoo sénégalais yi xeet boobu noonu ngay wax rek noo leen mën a influencer raasu caga yeeg dooma xaraam yeeg maada fakka yeeg imbécile loolu rek a influencer sénégalais yi nag loolu rek a leen di fec loolu rek ay dugg seen xol su weesoo lool waxkatu dëgg yeeg waxkatu jub yeeg nu ko ti leeralkat yeeg lépp lu nekk Sénégal kan leen si dégloo kan moo si kii ñan nga si xam les influenceurs dëggantaan mooy dooma xaraam yi caga yi puti fils de merde yi sàcc yi imbécile yi ñoo nekk doon si kaw ñooy ki di wax ñooy wax gars di kii donc soo nee Aby Ndour mënoo influence que da ngay nax sa bopp jàppal ni que Sénégal ku la gën a dooma gën laa mën a weddi gën laa imbécile moo la gën moo la ëpp mbooloo moo la ëpp mbooloo benn si yoonu murit parce que loolu moo tax souvent maanaam nit ñi ils doivent très faire attention les choses que nous nous démystifions laa teg ko si suuf mooy problème bi moo nekk sa kaw raasu abi nduur bi ñoo nu dirigé di raasam mboobu noon raasu caga beeg doomu xalaa maa la fëkk ñoo nu dirigé di ñoo nekk si nguur gi nii di ñoo nu dirigé nii raasam bi ñoo tax brada su brada su moo grand frère ñoom ñëpp ay imbécile ak ñeneen ak ñu nekk si nguur gi ñoom ñëpp waaw pile ak face même imbécile même kii la rek voilà ñooy wax gars yi di leen déglu topp leen nu jël leen teg leen si réew mi jël alal réew mi nu muy jaar seen loxo c'est la même la même chose. moo tax bu leen bu leen di toog foofu noonu gars yi di kii faut rien prendre à la légère. Il faut tout prendre au sérieux. Il faut s'occuper des choses. Il faut rien prendre à la légère. Les choses qu'on prend à la légère, c'est ça là qui grandit à ce niveau-là. C'est il faut arrêter de prendre les choses à la légère. billaay bii bu laay république des caga et des jigéen moom leen am Sénégal et des doomu xaam day sàcc sàcc surtout ma sàcc caga góor jigéen sàcc ak fenkat ñàkk waxkatu dëgg xam nga ñàkk waxkatu dëgg fenkat loolu mooy sunu république moto so soo ñu mel non, nak nek ci devant la scène di wax té jëloo leen au sérieux ils vont te tromper te dinañ defe ji monsieur parce que ñooñu nee les sénégalais qui sont au Sénégal qui n'ont pas eu la chance de découvrir d'autres choses yoy leen gëm De noo yar d'une telle façon ba nga xam que nee la ñu jass Sénégal té jotu noo am chance xol lénen wala xam li ils se disent que le Sénégal c'est la fin du monde Sénégal c'est le la limite du monde ñoom jàpp nañ ni que yëfu dof nous noonu dugal seen bopp noonu la àdduna mais il nee naa là où il gagne des points on a trop d'illettrés on a trop de cancres on a trop d'ignorants jusqu'à 2023 fii nous toog ni Sénégal est coiffé trop d'ignorants Mota tax base wax yak base affaire yi nous c'est lal ken kenn ñemewu c'est wax fo fek débat bi lu mu reuy reuy reuy reuy reuy rëy lu mu bari bari bari bari nit so demee tok doo fekk nit ñi di fa waxtaanee luy avancé le ñoo ngi fay waxtaanee bëre ñoo ngi fay waxtaanee football wala ñoo ngi fay waxtaanee fecc yëfu dof lu leer laa te Sénégal soo wàccee groupement lu mu bëri bëri bëri ay góor yàlla toog coow lu bëri nga dégg xëtër gi di jug ba nu nar a ñuusante wala xolal coow li soo ñëwee dugal sa nopp pour déglu foog na ni ko lu am fulla moo tax ba gaa yooyu dajaloo ba xëqët bi jug luy doxal dëkk bi kanam la wala lu leen di yee wala lu leen di may xam-xam wala loo xam ne aman na la njëriñ soo demee doo si fekk benn soo ñëwee looy fekk cooli bu mbamb ab wax Ouzin Keita ak Pawlish wa ilaa ab affaire de football wala affaire de mu Yékini ak Modou Lo Modou Lo Balla Gaye wala xoolal yëfu bëre bëre mais constitution tey du tax tey nga gis ay sénégalais di daje yow ngay dégg wax gi di wax ba di jug. lu am fulla luy doxal dëkk bi wala knowledge loo xam na ni que tey ab citoyen daf ko wala mën a ñor du fekk tey sénégalais ñuy dajaloo ba di si wax naw su wax gi naree ba sa la la ñuy wax xoolal waa loolu sa choix la waa léegi mën loolu mënuma si dara sa choix baay nañ wax wax yu nu mën a wax ba di yuuxu ba di teg ba di si xeex ba di si kii waaw comme sa waay waxu jigéen waxu taat waaw wax football nee naa la foo kaf rek taat waaw rek te loolu ma foo regarde partout dans le Sénégal amul fooy ñëw toog fekk leen hum, waaw ñuy xeex di xuloo si waaw contrat pétrole wala di wax ni que euh, wala sa ni xuloo di di hein ci ap équation bu ñu tégon mathématique wax di jéem a ni que ki trouvé na kii faussé na nan non fi nga kii xam nga équation bi dema naw do leen fa fekk am n'a pas ce temps nga fekk leen sax ci ñu ñuy xeexee paaw fecc mo gëna a yomb waaw fecc bi nii leen koy fecce tànk bi nga waroon jiital balaa ngaa jugal tànk bi loolu sa gars yi mën nañ say xeex l'État finance les divertissements lamb c'est vrai mais comme nous m'en à Ibrahim, j'arrête toujours de pointer le doigt à l'État c'est pas tous les jours que je pointe le doigt à l'État ah c'est pas tous les jours que je pointe mon doigt à l'État l'État finance ça c'est vrai mais à quel prix ou à quel point Qu'est-ce qui pousse l'État à financer ça Pourquoi l'État finance cela Et pourquoi le peuple accepte ce genre de financement C'est là où ça commence les, les, questions. Ah. Taï, sous état bi financement c'est parce que ce même peuple aime ça. C'est tout. Et nous, on a toujours une lâcheté de ne pas accepter que c'est nous qui aimons les conneries. Moi, qu'on nous sert des conneries. Nous sommes lâches assez pour ne pas accepter que c'est nous qui aimons cela et l'accuser de nous l'avoir fait aimer. Il y a un combat. C'est comme ça que nous, les Sénégalais, nous sommes lâches nous sommes lâches assez de ne pas accepter que ñun l'honneur, Nous nous servir loolu nous ko di parce que ça nous ko servir des fesses gars yi duñ koy du du du du comme nous gars yi nous wala mu zambala yaa comprendre non day jàll day dox yaa comprendre comprenez saa ça, sous tard, des gars yi ko waaw mais show mais les quand au moment de venir maintenant d'accepter que c'est nous qui aimons la médiocrité, moi, nous n'y médiocrité. Là, on ne va pas accepter. On fuit tout ce que c'est l'État, moi, nous, quoi, moi, nous, on de qui. Mais pourquoi on ne peut pas dire à l'État qu'on ne veut pas ça? On n'a qu'à les boycotter. On n'a qu'à ne pas suivre. On n'a qu'à ne pas suivre et faire comprendre que ces choses-là, nous, euh, euh, nous-mêmes, comme nous, tey jii nii télé yu nekk Sénégal yëpp na pas à l'État <coughs> plateforme yeeg télé yu fa nekk noonu yëpp c'est des télé publiques nu eh, ko waxati privé et eh, nu ko waxati des des des chaînes des plateformes ay nit lambda ñoo leen moom de programmes yi nga xam ne que ça n'a rien avec RTS bii nii rek mu yore il a des problèmes à le gérer moom lu mu bëgg nu koy jàllalal et RTS saa yu ko jàllalee RTS am musiba. wala dégg musibaam ñom RTS bu leen jox c'est un tout un problème donc pourquoi allons-nous toujours remettre à l'État certaines lacunes wala certaines conneries bordel yo xam c'est nous-mêmes ñun ñooy doomadaam yi pourquoi bëggu nous, nangu xool loolu noonu dindi ko ñun ba mu set pourquoi ñooñu tant que ñoo ngi koy tegal ñun ñoo ko ne ñun la neex ñoo fa attiré te ñoom dañuy jaay il regarde le taux de personnes qui suivent nit ñuy xool su ko gars yi seetaanul benn yoon ñaar yoon billaahi ñu xool leneen parce que suñu continuer dañuy këpp duñuy fay dootuñu am lu ñu fayee ñoom pour nu am xaalis pour nu am kii foog nit ñi di leen seetaan foog nit ñi di fa dem donc nag ñoom tant que ñoo ngi koy teg muy dox nit ñi di fa dem duñ ko ba noonu la ñuy amee seen xaalis donc gars si suñu demee nag que si doxul ko la une semaine changeons le programme parce que nous changeons les programme dootuñu am rentrée te suñu nous rentrée bu may chaîne bi une koy donc encore pourquoi aimons-nous toujours pointer du doigt et et ne pas accepter pour prendre nos responsabilités pourquoi pourquoi n'acceptons pas la réalité nee naa problème bi ñuy dem di jeex ji fu sori suñu biir lañ ko wala njëkk xolé réglé ko ñun suñu bop ño wala defaraat suñu bop defaraat suñu logique defaraat suñu mind pour lu ñuy xeex ñu xam ko suñu dul loolu noonu xeex bii nii sax xeexu du kenn xamul kenn comprendre du lay jaxase parce que les têtes ne sont pas encore solides gaay yi amna am na suñu bëri naan kii ximmileku nen nii mais yeewooguñu parce qu'ils arrivent pas à mettre les points sur les i il faut mettre les points sur les i wax ki suñu biir la war a commencé lii nu ñu imposé ba duñ ko teg ñoo ko nangu lii nuy dund ñun ñoo ko bëgg on a qu'à changer ñun suñu jikko yi suñu comportement yi mooy lan par par parloo fen duul kekki nangam suñu paree si loolu nee naa le reste va suivre le reste va suivre tey suñu demee ba taal télé yëpp boo taal chaîne boo taal Sénégal fait que fekk euh, divertissement qui waxu dof ak it ndeyefu parce que les sénégalais aiment le divertissement n'aiment pas le sérieux non ñom ñu xam ko ils travaillent avec ça le sénégalais n'a jamais montré du sérieux ce sénégalais yi bàyyoon seetaan di divertissement de setan sérieux wala se concentrer au sérieux dina leen proposer du sérieux mais les sénégalais deuk bi ça faut tourné faut tourner sénégalais sérieux wul dara ce propre cœur nga kay commencer 1 2 3 damay dem ndey di ndeyale ndey dikke eh bàyyile nday tantale te pooju goro ay affaire doo dee comprendre gétte qui toujours de la fête ay affaire de distraction ay yëfu con ay waxu dof et les gens sont pleins dedans Pleins dedans comment ça va changer comment ça va changer comment donc si nous commencé c'est critique suñu bop. xool nous bop. Nenale naa ñi ñuy fal ci suñu biir la ñu jóge voilà ñun lan mo wara ba nga xamné que ay sénégalais diaspora mëna yéw di wax wax gi ni c'est parce que ñun danoo gis dem ba yéw gis ni que ah xam ni que aduna gi ne se limite pas au Sénégal y d'autres choses aduna gi clair suñu kanam mais sénégalais yé nga xam que leen eh nu tejj leen si ben kaf musuno génn Sénégal kayitu juddu sax amunu ko ñoon so leen koy wax da nga leen di sonal Ils ne comprennent rien de rien de rien du tout ces connards. Ils tant que nous wala jiite wala loxo ils ne le connaissent pas donc qu'est-ce que les gens racontent qu'est-ce que les gens racontent c'est bien beau qu'on attaque les hein c'est bien beau nous qui parce que nous ñoo nous faloon mais tamit man comme comme nous à chaque fois je suis une personne bon je dis à chaque fois ni que nous suñu nous ba bas wala sommes c'est parce que nous ñoo am Nous nu mel tax nu am positionné parce que aduna nu nga mel non la la say dëkkandoo di respecter non la la tamit kula gis di c'est tout tay ji ni yow so nekkee ab nit ko xam ni ke tay ah amo respect ci so bop bëggoo lu bax hein ah, bëggoo di nekk si yëfu nit di ko xalaat keneen su ñëwee tamit su lo xolé tamit non la lay jëlé noonu la lay téye te si level boobu la lay teg soo bëggee nu respecté la yow yaay njëkk a incarner respect comme ça nu mën laa respecté non Mariama Anne xam nga man lool dama ko yàgg wax naa leen ñun ñii tamit nekk à l'extérieur on a joué un grand rôle avec ce qui se passe à présent au Sénégal. Ah. On a joué un rôle, bon, on se disait bien faire, mais en voulant bien faire, il y a eu des problèmes, il y a des erreurs. Parce que ce n'est pas méchant d'aller chercher une vie meilleure et de trouver des miettes et d'essayer en faire profiter certains. Ce n'est pas méchant. Mais là où ça devient dangereux, moi, là où tu essayes de faire profiter tes miettes à certains, et que ces certains maintenant se rendent confortables sur les miettes que tu leur donnes jusqu'au point de ne plus rien vouloir faire. Et c'est là où maintenant le danger est rentré. Yaïgis, moi, nous, tamit les sénégalais de l'extérieur les immigrés nous avons joué un grand rôle dans cette fainéantise interne qui se passe au Sénégal et cette histoire qui se passe au Sénégal parce que l'outa, nous avons waxante dëgg waaw neen waxante dëgg tey man Moussa nee nous sax yar ak euh, ndogalu yàlla lu waral may wax loolu mooy dama koy exemple ci sama bopp ba may nekk Sénégal di taxawaalu di wëndeelu senegal di toog di jéem a xoolaat nan laay récupérer sama life sama mère nekk fii États-Unis chaque mois mu yónnee ma Mais fallait me voir, Mac Mère. Fallait me voir. yaa yow nu nga nee lii rek nga may yónnee yaa ngi États-Unis dollars yi foofu la nekk nga wal maa yónnee lii nga may yónnee xaas gu tuuti gii patati pat mère gi daf ma doon ree chaque instant daa may waay doom soo xamoo lu may dund fii soo xamoo nu ki mais demal rek tey man maa ngi fii si mais franchement damay toog chaque jour su ma yeewoo dama koy jéggalu saa yi ma jullee ba pare dama koy jéggalu saa yi ma jullee ba pare ba tàllal samay loxo première chose bu may def jéggalu sama nday jéggalu sama mbaay nu ma leen sonnalee woon surtout ma sama yaay parce que léegi je vis les choses en temps réel je sais te man nag yorewu ma sa charge yu moom yu mu yore woon voilà Moi, nit yu mu top, diko topone toppoon yu nekkon ci ginnaaw yëpp mo la je n'ai même pas le un quart te xolal si xuntu la dëkkee et là j'ai compris mota tax ma gis nga ñun nak sénégalais c'est de cette même façon qu'on a rendu feneyak les sénégalais qui sont sénégal ken du jug yëngu so féké ni que yow Y'a ngi mën a toog ay numéro de téléphone si sa téléphone yo xamné ni que soo si wo ki yónnee la cent dollars kee yónnee la cent euros kee kee nga ko koloo fay te affaire lu tax ngay xeex lu tax ngay liggéey tey sénégalais boo gis nee naa la soo sàccee téléphone am lu tax muy jooy puce bi la. lu tax muy jooy puce bi numéro yu fa nekk parcourir contact yi nga xool tata Ndeye Fatou France tonton Ibrahima Chicago Moodu Atlanta.

balaa fee bi nga foog ne que du laa woo di xool ndax yaa ngi si jàmm wala woo la nemmeeku la mais du lay woo allo alo ça va yaa ngi si jàmm waaw ah waaw gis nga seetaan nga journal taay ah <laughs> ah mbir yi yokku na de ah yokku na lool sax léegi marché bi dafa metti de di lay wallaay a ah, en tout cas de xam naa moom weer gi lu ngay yónnee jàpp si rek nga yokk sa loxo waaw weer bi moom de lu ngay yónnee de moom war ngaa yokk sa loxo waaw ah, diwlin bi seer na ceeb bi seer na lépp a yokk Macky Sall yokk na lépp te ñoom du ñu dem kolo xeex de jooy pour que nu wàññi pour que ñoo nu yërëm la noonoo yow leen liy laaj xamuñu nooy amee xamuñu nooy liggéey du la laaj ndax yow fay nga sa ndax yow sax añ nga wala reer nga ndax feebaroo wala da naw ñoom yokkal leen voilà comme que ñoom yokk nañ seen dund yow tamit yokkal leen.

léegi nag nit yu mel noonu ah nen wante dëgg yooyu la nam Sénégal moo tax gaay yi Guy, yi ay dof leen ay nous leen duñu jug duñu xeex duñu yeew ils ont déjà l'habitude de la fainéanterie Nous ñun ñëpp si jouer ab rôle Lini nii am Sénégal jamono nous ba tool ba mënunoo and gisandoo le problème de tout tout le monde ba mënunoo and nekkandoo xolal si Jam, n'est le problème yee nekk nous tous nous avons fait un rôle dedans te <laughs> tànk jugunu si mooy loolu tànk jugunu si mooy loolu moo tax ma naa leen immigré yi seen bopp ñoo war a commencé téye seen loxo lu waral tey sénégalais yi mënoo see wax gars yi jug leen nu xeex si lu ñëpp bokk ba nu jug xeex parce que daa am ñuy yónnee ba tey ñooñu ñoo ñëpp di wax xam ne ni que bu baax du état du dara moo leen yor nee naa la gàmmu yeeg màggal yeeg ngénte yeeg inscription yeeg dëj yeeg lépp immigré yee ko yor ku dee immigré la suul ku dem kattante ba jur immigré yi ngénte yaa ngi comprendre ku ñëw jur nag tamit ba teg ba toog nga wala jàngale immigré yi fay Sénégal amatul lenn lu kenn mën a lijjanti boppam xanaa nga bokk si gaay di sàcc nga bokk si gaay di sàcc ñu leen ñu dàq liggéey ami métier ñoo gën a ndóol ëppi bor ëppi bor déggoo c'est une histoire bizarre voilà une histoire bizarre gars yi dañuy yeewu 6 heures 9 heures su gudd la leen seen kër di gis wala 8 heures te ñoo ëppi bor saa fo chaque jour soo demee si boutique bu bu leen gën a jege nga fekk fa ñoo ngi fekk ka yow 40 000 jëm kaw wala 50 000 voilà chaque jour ñoo nee na léegi nag loolu lépp lan moo ko waral ay nit ñoo xam ne ñoo ngi fiy toog di xaru. di jël sas tuuti lu ñu yor di ko mo wara war so liggéey nga bëgg ubbi ab business Sénégal nga tek ko fa ñu kopp ko ñu kopp ko je n'ai jamais vu ab immigré bu tok immigration jël xaalisam investir Sénégal mu soti mu tok mu mën la confirmer ni que ah man nek, wa nek way investir na li mu xana nga tabax kër voilà def ay location Lol da investissement bob moy ki te nak nga and seeg jom te kër gi bala mo taxaw nak mom di nga xex voilà dinga nga xeex waaw gi nak su après nga de lois bi tamit Sénégal non so connaît à ça amul business est tek du boutique bu sénégalais ko ay mbokam Sénégal ubbi ko pour que gars yi ko mu dox famille mu dox amul non un an la maintien lay def un an boutique bi du taxi du car du bus du dara commerce bo fa un an deux ans woo la ne la lekk naa xaas wala xolal moy lol gën koy régler biiru famille nu na la ne bul porter plainte bul dem fenn bul xuloo mi kay nu naxante yofu famille la Nous, nous, on est tous coupables de ce qui se passe en ce moment au Sénégal. On doit s'asseoir et faire une autocritique de nous-mêmes. Nous tous autant que nous sommes xam d'abord, d'abord, d' nit parce que nous, naa au Sénégal on dirait que ils ont perdu la notion de ce quoi un être humain parce que soo xoolee c'est i comportement c'est i wax vice yu nu bëgg wala affaire yu nu topp bàyyi la mala sax bëggul du ko def donc les gens ont perdu ce qu'on appelle sax le sens de ce de de quoi un être humain et et et de quoi un être humain a-t-il besoin pour évoluer dans son habitat naturel. Disons, ont cessé. ça sortit dans la tête. Hein. Les plans manque d'éducation. Manque d'éducation de base. Sénégalais, ils se disent que la vie, c'est spiritualité. De spiritualité, ils sont perdus dans cette spiritualité. Ils ne comprennent rien. Beaucoup de Sénégalais se disent que la vie se limite à la spiritualité. Hein que Dieu nous a créés seulement pour le spirituel. cette logique est wrong Dieu nous a pas créés seulement pour nous d'une spiritualité on doit faire partie à développer le monde chaque personne a quelque chose à à évoluer ou à développer dans son habitat naturel mais tey jii ñu tey koo si xool danoo foog que la vie se base tout à hein. ah way non spirituel spirituel DJ jéem a yiw yiwlu wala foog ne ni que y'a, gën a baax ñëpp wala di jéem tek, teg alors que ni que ça n'a aucun sens a na ah non mais du loolu leen jiital ce n'est pas une priorité les quand ça arrive entre nous parce que spiritualité c'est quelque chose boo xam de fait spécial c'est n'a laa ko mën a c'est sacré à la personne quoi c'est un truc ça te concerne toi quoi voilà yow c'est c'est da c'est jaloux c'est pour toi voilà ça c'est spirituel c'est pour toi mais les gens que jëlee été ko de faire dafa am lu le monde commun faire am lu nu wala boole nu ñëpp en commun voilà et là ce n'est pas la spiritualité là c'est ce qu'on appelle la vie en concubinage voilà les bonnes relations Et loolu ce n'est rien de spirituel ce n'est rien de spirituel. Éducation de base. c'est là maintenant qu'on manque mon pour que nous, nous menions en il y a des problèmes pour que ça nous que bien. avoir un bon socialisme hein avoir un bon social living on ne peut pas parce que toujours ça nous faisons une spiritualité même quand on doit vivre en concubinage on met en avant la spiritualité on a des problèmes nga que on ne veut pas l'accepter on veut tout pointer du doigt sur le wala euh, naan non nguur gi la alors que ni une partie ce n'est pas l'État l'État est même tel comme elle est à cause de nous nous ñoo tax état bi mel ni nous mel Lolu yag na ko fee na len suñu sunu amonfula fulla fayda am lu nu teg nguur gu ñuy fal su ñëwee tegu day ànd ak fulla fayda mais lan moo waral ba nguur gu ñuy fal chaque jour su ñëwee du ànd ak fulla ak fayda c'est parce que ñun ñii di leen fal dul leen fal si fulla ak fayda that's it te nag fulla fayda fañ lay feeñee xeex bii nii ñuy bañ a xeex tant que xeexuñu ko fulla ak fayda bi du feeñ nee naa leen États-Unis bii lan moo waral lu tax kenn ñemewu la sàcc ay élection wala konkon si élection yi di dof dof parce que bis boo ko defee du du ay ñeneen ki na peuple bi ñooy teegal sa bon peuple bi mooy génn gars yi ñooy génn le nee naa la boobu dafa tuuti fii doomu président day génn def scandale peuple bi génn doomu président day génn taaw si mbedd bi kookoo la wala doomu ab sénateur wala gouverneur dof peuple bi génn donc ñun suñu demulee ba yee suñu bopp xam lu nu bëggal suñu bopp keneen ku ñëw nu nu taxawee di dof-dof loolu la ñuy tegal ay tegu dof-doflu dof-doflu suñu kaw ñoonte dëkk soo ñëw si ab dëkk boo xam ne tout le monde se développe yow nga ñëw si dëkk bi dëkk bi di xaar développement am si ab sëriñ gu dee dañuy wante dëgg ngay campagne di toog di lekki nga ñëw nga fekk léegi majorité wu dëkk bi yëpp gis ni que daa ñoom seen live wala lu wala changé dëkk bi sëriñ su deesi la toog di kii qu'est-ce que tu vas faire da ngay ñëw jàppale leen si seen sëriñ su dee soos ànd ak ñoom seen sëriñ su dee si di dem yàqal leen ko seen kanam mais soo ñëwee nga fekk ab peuple boo xam ne ni que ñoom gëm nañ seen bopp. nga fekk leen ñuy liggéey di jàng wala di defar di créer di teg dëkk bi gars yi concentré wu si loolu est-ce que yow am nga ñëw fit ñëw toog di naan leen da nga leen di servir leneen wala di leen woo si leneen amoo fit bi da ngay ñëw obligé topp ñoom fu nu topp di jàng tamit xoolal di créer di def parce que loolu leen xam soo leen servir leneen da ngay sonal sa bopp xamuñu ko da nga ñëw fekk leen tey jii ni Chine soo fa demoon bëgg faa teg leneen lu dul créer wala liggéey. wala dem yi investir wala ubbi commerce nous len di sonal deug di sonal donc tay nous ni ñun nous tay ba nous servir, affaire ñun ñoo bëgg yofu dof suñu

à moins de 24 heures d'une fille jugée parce que am lu njëriñ ñi mais nak su gaay nak togué nak doon ay médiocre médiocre yoy non ñew di pourquoi on doit se plaindre pourquoi on doit se plaindre dafa yomb lool problème bi ñu jël ko bëgg ko tek à 100% joxoñ ko naan nguur gi la nguur gi la nguur gi la nguur gi voilà tout n'est pas l'état am nañ ci rôle gars mais chacun doit prendre aussi sa part de responsabilité ah L'État en a un grand rôle, mais le rôle principal, c'est nous, le peuple. Nous, nous, ne jouons aucun rôle sur le développement du pays. Alors que nous devons être l'élément moteur de ce pays. Le ah, peuple du Sénégal, sans ah. bureau Le peuple n'accepte même pas de prendre ses responsabilités. Le peuple, nous le wala di leen gis ni le peuple bi def na liggéeyam mooy joueurs yi gagné coupe wala joueurs yi Nous nu accueillir les stade wala yëfu dof mais le peuple ne prend jamais ses responsabilités dans rien. Tout les, toute la responsabilité que le peuple devait prendre pour en, être ensemble, li yoy yo da ngay dem xol ñu jox ko ay serigne, ay mam, ay mak yu bax, xaar ay ay pa yu dof yu wala wax di wa mais hein, lu tax kenn waxul wa diw waxul wa diw ne, wa kek nangam ñun nag kenn ñun melni ko ñun do no jël suñu gémmiñ ñi ko mais no dañoo jël suñu ñi ko wax donc sama gaay bal ma ia yemale waxtaan gi fi nyana lay ñaanal yéen ñëpp nga nek rek ana ne yalla dafa la jam suñu dëkk gi Sénégal mom moy loolu yalla xam baax na mais lu si woor bo woor moy na ñepp ñepp ñepp yew te yew moy lan moy ci boom jam waaw ba ñun ñëpp ñu bokk nekkandoo benn jug lijjanti lu nu wala lijjanti parce que Sénégal problème tay jii ni Sénégal ñak booloo la suñu wé rek yu si bari changer. voilà on peut ne pas croire les mêmes choses avoir les mêmes croyances on peut ne pas avoir les mêmes idéaux mais la même amour pour ce pays on doit l'avoir tous waaw te nag amur boobu noonu nan lañ ko mën a wonee dëkk bi sii di jéem a booloo mettre tous nos nan laa ko mën a waxee nos contentieux jël contentieux yu nu am yëpp ak nangam teg ko nële daa di jéem a jël léegi loo xam ne ni que tey suñ siy waxtaan wala suñ si doxee wala suñ ko lijjantee chrétien bi aate bi juif beeg wata fak nu mu munti doon ñëpp di leen si gis seen bopp wax gi foofu la toll foo xam ne ni que tey jii nii suñ koy def walla nu wal say taxaw di ko def duñ ko def parce que fii laa bokk wala ñii laa àndal walla lii laa gëm duñ koy def ngir bakkenu doomu aadama parce loolu mooy base bi mooy wax gi moo tax ñuy xeex moo tax ñuy wax man encore sama wax gu bëri gi yëpp mën naa toog tëj sama gat parce que maa ngi si jàmm mais lu tax may gën a di wax di est parce que nee naa leen deux mille vingt trois vingt unième di gis ab dëkk boo xam ne ndox gi bul di comprendre di gis ab dëkk boo xam ne nit ñi dañuy feebar mënunoo faju amunooy couverture sociale sunu yaay booy am si ñu si wasin si ay saret ba tey am ay xolal région wala ay département sans maternité loolu musiba la te su ma koy wax waxuma ko parce que dama naan na jullit yeeg kii wasin fa wala kay nangam je parle pour toutes les races et toutes les ethnies et toutes les religions parce que hôpital amul sant hôpital amul sant hôpital amul sët amul maam bu baax waaw xàmmewul jont xàmmeewul jooy c'est pour tout le monde maternité doomu sëriñ si mën na faa wasin doomu baadoolo gi mën na faa wasin chrétien gi mën na faa wasin keneen ak keneen lu ñëpp mën a bokk man looloo ma intéressé mais man ay yëf yu communauté mën a am wala lu ab parti mën a am wala lu ab man loolu intéressé wu ma man affaire bi suñ ko mënul séddale ba une partie bu takku mën say gis seen bopp loolu taxumaa wax waaw parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk Sénégal ñun ñëpp ko bokk nun ko boqee nag noonu leen ko wala séddalee mu jaar yoon ba pare ànd si tamit liggéey teg ko mu jaar yoon su ko defee ñaanal di lay jégalu lépp nga xam ni que fi ngeen xam ni man la lépp lu i am gonna broke your leg next time yeah am gonna broke your leg next time you scary why you run I see you jump you look like I'm like look she's scared and she tried to act she's cool but she's scared. Car. <laughs> Yeah, that's it is. I thought I accidentally pressed my alarm. Yeah. Sometimes I have to play the fool and see what's going on around. But you're scared. He was about to run. donc sama gars di leen jéggalu si lépp lu fi yàqu rek ngeen xam que man laak sama dofe quoi sama dofte lu fi baax rek ngeen xam que yàlla te yàlla na yàlla def ay yiw yu bëree bëri di la ñaanal naa leen peace love and harmony ciao